dik ñëpp dal daanaka ci kër diina yëpp mu doon nag loo xam ne ni yaakaar naa ni duñ ci mën a sori waaye li wértu wóor loolu moom moo di xibaar bi te moo di El Hadji Sidi Lamine ñas mi PDG bu groupe Walfadjri mujjee na wuy ji boromam lépp nag loo xam ne ni incha bi daañ ko ci am ci wàllu information daal leen ko dëgtal eh, fi nga xam ne nii moom moo di ci eh, ci télé bi kon nañ jàpp ne xibaar boobu moom la xëyee tey mu doon xibaar boo xam ne nii xibaar bu tiis la nañ jàpp ne nit ku baax nit koo xam ne nii eh, nit liggéeyal société nit koo xam ne nii tey jii buñ demee ba démocratie am fii ci senegal bay na ci làcc wu am solo nit la koo xam ne nii yaakaar naa ne ni ko kër diine di jooyee tey noonu incha allah rabbi la ko taskatu xibaar yi di jooyee ndax bëri na tey ci ay taskatu xibaar yoo xam ne tey jii ñu ngi ci barabu liggéeykaay yu ci bëri di def taskatu tasum xibaar ci këram ji la jaare kon Sidi Lamine ñas moom nga xam ne ni daanaka dafa liggéey lu bari société bi tey jii yàlla dogal na moom moo dëddu àdduna bés biñ koy rob ak lépp daal incha allah rabbi ci kanam ci daañ leen ko daañ leen ko dëgtal kon mu ngoog loolu mooy xibaar bi xam naa ne daañu ci dellusiwaat incha allah rabbi ak euh, njaboot gi dellusiwaat yeeg ki nga xam moom moo di oustaz Assane Diouf jërë ngeen jëf.